ginnaaw baraj baraj jee gim nekke woon ci coupe du monde ba mel ni bay wuré ci Iliman Ndiaye Ilimani attaquant yi nga xam ni coupe du monde ba jeex na ci moom a mu toll nii jël nag fa ko naaw nee na cëpp ca Sheffield United ma nga fay Sheffield ah, ah, ba nga xam ni fi toll nii laxas ak laqate ba nga xam ni nekke woon na ko fa daanaka lu mat ñaar fukki fan ak nangam gis nu ko waaye tey ji mbégte la ci ñoom ah, bi nga xamee ni gone sénégalais gi ñëwaat na ngeen gis ko noonu mu nekk ci tàggatu goo xam ni tey ji nag mu àndaale leen ak mboqos mboqos ba laf cat puqus boo xam ne daanaka ah, ah, ah, na taraj ndax entraînement boobee daanaka gone mu doxal fa am solo di waaj li nga xam ne match bi nga xam ne war nañ ko am fii ci weekend bi nga xam ne moom moomee war naa laala terrain yooyu ñëpp nag di ko bàyyi xel di ko ñaanal lépp lu mu jublu loolee jaar yoon loolee mën a tegu ci yoon match boo xam ne bu saf sàpp la nar a doon match boo xam ne daanaka Sénégal yu bari dënoon mu sikki mu gone gi ci Ligue ba nga xam ni moom la nekk ca championnat Angleterre euh, di ko doxal mu nar a nekk euh, loo xam ne na ko ñëpp xaar euh, information yoo xam ne de depart yi ak lépp loo xam ni war ngeen koo xam da ngeen ko xam ci seen seen préféré ci TikTok beeg YouTube bi ginnaaw bu ngeen defee seen abonnement te TikTok bi burung lu ndànk dugg ca YouTube ba def seen abonnement toog xaar xibaar yi di wàcc ndànk